salaamaaleykum euh, chers internautes yéen ñi nga xamante ni yéen seetaan lii di Rewmi TV daleen ak jàmm ci seen émission biir réew mi euh, tey àllarba ñaar fukki fan ak juróom ci weeru août euh, ñu ñëwaat ci xamante ni moom mooy seen télévision Rewmi TV war a waxtaanee yu bare bare bëri fi nga xamante ni moom mooy seen émission biir réew mi comme ni ñu ko defee saa su nekk comme ni ñu ko waxee woon rek dinañ fi dalal ñëpp ñoo xamante ni ay kàngam lañu ñu war a waxtaanee lépp loo xamante ni day concerné waa réew mi ñu indi ko waxtaanee ko fii seen plateau. biir réew mi tey nag ma am mbégte wu ah, dafi dalal ah, ki nga xamante ni moom mooy Alioune Badara Kane nekk président du mouvement ah, JICAO nekk aussi membre du parti démocratique sénégalais Cap-Vert nekk aussi membre de l'association sénégalaise de la diaspora et des immigrés ma fi dalal aussi ki nga xamante ni mooy professeur bu saaba nekk élu local département de Pikine nekk aussi coordonnateur bu mouvement gox bi Thiaroye donc mu nekk tey sama ñaari invité yoo xamante ni nañ ko euh, waxtaane wala daa ñoo ñëw ci euh, li nga xamante ni moom mooy euh, sujet yooyu ñu war waxtaanee ma leen bàyyi ñu daal di ak ñi nga xamante ni ñooy gistaan ci Rewmi TV monsieur Ba maa lay baax baax. asalaamaaleykum Serigne Mor maa ngi lay jaar baax baax di la fay. Hmm. maa ngi nuyu waa Rewmi TV yëpp tàmbalee nuyoo sama co-débatteur. ñi hmm. nga xam ne moom nga invité macha allah. mais aussi de nuit vraiment ces techniciens là qui sont autour de toi. waaw depuis presque trente minutes gis naa le travail colossal qu'ils ont fait wala boog qu'ils sont de faire pour que nit ñi mën a am réception ci li ñuy wax. Mm-hmm. kon càttan gërëm ñeel na leen. Mm-hmm. yàlla yàlla yokk seen i mën-mën voilà euh, monsieur Kane aussi ñu euh, di wax salaamaaleykum Sénégal wax salaamaaleykum aussi la diaspora Euh, di la nuyu Mor euh, di nuyu aussi nga permettre euh, cinq minutes rek même une minute mu nuyoo suma gars yi nga xam ne vraiment ñu ngi jël seen temps di ma seetaan instant bi ñu ci mel ni Fada Amérique ak suma gars yi nga xam ne ñu nekk Espagne Italie ba nga xam ne fi nga xam ne mooy suma suma chaise moo di Cap-Vert di nuyu également aussi tamit comme ni ko sama naataango waxee di ko nuyu également aussi di nuyu aussi euh, ñi nga xam ne moo di euh, waa parti démocratique sénégalais ak sama mouvement bi nga xam ne moom mooy mouvement JCAW mouvement des jeunes cadres wadistes bi nga xam ne c'est international di nuyu aussi tamit euh, télévision bi réew mi. di leen jaajëfal ci invitation bi. voilà donc euh, seen émission euh, biir réew mi ñu war fa ñaari kàngam yooyu ñu war a waxtaanee ponk yu bëri bokk na ci li nga xamante ni moom mooy euh, gestion inondation yi xamante ni jamono ji moom moo lëmbee biir réew mi tamit dinañ wax ci wàllu élection locale yi nga xamante ni si leen jëm fusion bi nga xamante ni dégg nañ ko ci diggante PDS PASTEF ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa taxaw dakaar waaye tamit ñoom tamit ku ci nekk je pense que am ngay ambition politique yoo xamante ni am nga ko. Euh, fa nga xamante ni fa nga dëkk aussi dinañ ko waxtaanee parce que jamono ji euh, ci loolu la ñu toll euh, ci jëm ci li nga xamante mooy local yi ak xamante ni mooy fixation wu caution yi ñoom aussi je pense que am nañ ci benn jàngat bi ñu ci war a mën a def donc mu nekk tey li nga xamante ni dinañ ko waxtaanee saa su nekk di nuyu nag nga xamante ni moom mooy monsieur Mbagnick Diop donc nekk suñu président directeur général bi nga xamante ni moom mooy bi ëmb lépp loo xamante ni moom mooy réew mi muy réew mi FM di réew mi TV di réew mi quotidien di aussi li nga xamante ni mooy réew mi point com donc mu nekk euh, li nga xamante ni moom mooy euh, mboolem euh, plateforme bi nga xamante ni ñoo nekk ci biir bërëbu liggéeykaay bi donc comme ni ñu ko defee saa su nekk rek ñu ubbi suñu waxtaan su li nga xamante ni moom mooy gestion inondation yi yéen euh, ñaar je pense que yow sax euh, ki nga xamante ne Moussa Ba moom fa mu dëkk sax je pense ah, jamono ji euh, jot naa jege ñi nga xamante ne ñoo nekkoon fan yi doon fësal ci li nga xamante ni moom mooy mbënn mi gestion bi ànd ay coow plan Orsec ak yu donc yow ban situation nga gis ci li nga xamante ni moom mooy lii di gestion lii di inondation yi parce que lu toll ci 700 milliards ñu def ko ci diggante 12 ans yi nga xamante ni Macky Sall def na ko fi te booba léegi mënuñoo trouver benn solution ngir mën a xeex inondation yi jàngat def ci jamono ji ci li nga xamante ni moom moom def euh, ci li nga xamante ni moom mooy liggéeyu inondation yi. bu mu permettre sëñ hmm. situation nga ma laaj. Hmm. elle est désastreuse catastrophique hmm. débordée tu vois xam nga mbirum inondation man euh, dama ci bokk ci parmi les premiers acteurs de la banlieue inondation bon man dabuma vous voyez ça en 2008 dañu créé l'association pour le développement et l'assainissement de Djidah Thiaroye Kao Djidah Thiaroye Kao moo nekkoon la commune la plus inondée du Sénégal euh, plan euh, Jaxaay biir Djidah Thiaroye Kao lu juddoo biir mairie Djidah jaaree kaw la conception plan Jaxaay juddoo maanaam délocaliser les populations d'un point vers un autre maanaam jëlee population yi ci zone bu inondée recaser leen dans des zone yoo xam ni mën na si nañ faa am dund bi nga xam ne ñoom bon mën nañu am amélioration alors sànq dama la dama la dama la nu mu dama la euh, dama la dama la dama la dab sa wax ne la situation elle est pour quoi non seulement c'est une gestion catastrophique mais c'est une gestion irrespectueuse tu sais pourquoi xam nga mbirum inondation dafa nekk loo xam ne bépp nguur buy xaar euh, une gestion annuelle des inondations pour régler ko cest dire que bëri ambition wala boog boo bëree ambition tamit sa vision néew na maanaam sa gisin gàtt na lool waaye ok nga ñëw tey ci problème inondation banlieue quand on combattait ça en 2008 même plan même programme même gestion ba 2021 ñu ne ñu ñun on doit continuer à vivre cette situation d'une manière éternelle comme ça c' est pas sérieux. moo mais mais côté bi nga nekkee je pense que xaw na fa wàññeeku tuuti waaw maa ngi c' est pas sérieux xam nga tey am na ay programme yoo xam ne du ma ni lépp bon na ci état am na programme yu état teg muy lu mel ni projet muy lu mel ni PACASEN c' e. est des programmes yoo xam ni dafay accompagner les municipalités dans leur gestion n' est ce pas parce que tey ñëpp xam nañ ni euh, domaine de compétence transféré euh, assainissement dafa bokk ci lu ñu léegi la municipalité moom mooy lan la gestion locale muy les mairies des communes du Sénégal n'est-ce pas mais xam nga tey di les gros moyens sont détenus par l'État xam nga yaa ngi may wax sànq nga ne ma man koñ bi ma dëkk c'est vrai que inondation am na amélioration ci commune bu Djeddah Thiaroye Kaw parce que tamit nag wolof Njaay nee na loo bañ bañ goro nangul ni mën na yëg am déet voilà inondation am na amélioration biir commune bu Djeddah Thiaroye Kaw tane na ndax gënoon na faa métti ndax boo déggee man la gënoon na faa man mi xeex inondation démb fekkee inondation démb fekk inondation tey maanaam ku fekkee inondation depuis 1996 booba ñu bëri tey Sénégal fii di wax ci ay mbirum inondation man la booba suñu maay ay lu ndaw lañ man la boobu suñu maay xamuñu sax ce que ça veut dire ñun les premiers traces traces xam nga trace les premiers traces d'eau trace d'eau bi njëkk am biir commune bu Jodé Thiaroye ko mi ngi génnee bundu kër ñoom Modou Camara en face kër ñoom Ndeye Camara fi seen yaay doon jaayee xaal noonu en face. mooy fi tuyoo yi ci suufu tuyoo yi foofu la première trace d'eau génn biir commune bu Djida Thiaroye Kao biir banlieue c'était vers les années 94 ñu gis fa première trace d'eau alors en tant ay xale ñu ñëw di ci waxtaan naan waa lii lan la fu ndox mi jógee et cetera boobu noonu moom moo dem ba nekk ay ay ay ay cuvette dem ba nekk ay bassin dem ba nekk ay ay ay bas yoo xam ne mën la suñu kon ce qui veut wax ci dañ koo xam parce que ñun dugguñ ci inondation parce que dañuy politique dañoo bëgg am visibilité ñuy dem di fekk inondation jàmbur ñu fay walliyaani di ci wax yu àndaale ak ay caméra ak ay photo pour am visibilité loolu ma bokk na ci li ma gën a naqari Sénégal am déet gars yi nga xam ne dañuy jël inondation boole ko seen programme de campagne mais inondation mën na nekk programme misère doomu aadama nan la mën a bokkee ci programme doomu aadama yow attends yow tu mm. boole sama programme de campagne qu'est-ce mais est-ce nekkul day day ñëw exploiter li nga xamante ne. waaw mooy li ma la wax rek xam nga tey man gis naa ay nit ñoo xam ni tekkiwuñ benn dërëm Sénégal man xam naa leen amuñu ñeenti nit yu leen topp wax tax ju bari rek mais pourtant boo leen gisee dans les réseaux sociaux ñu jël seen i caméra ak seen i euh, photo ak seen i vidéo yi topp leen ñu dugg ci inondation yi di wax. mais tu as l'impression que kii c'est le monsieur inondation de la banlieue. fekk ay nit ñu tekkiwuñ benn dërëm lañ. dañuy fekk ay nit ñuy dund ay situation yu métti métti métti ñu koy exploiter man tey jii état li mu waroon a def ci inondation def ko parce que gérer les inondations ne veut pas dire da ngay xaar at bu jot nga ñëw euh, def benn genre euh, mascarade def benn défilé xam nga ministre yi ñëw dugg ci ndox mi euh, xuus gars yi caméra leen génnee leen ñu ne si si comme ni ko paa bi doon waxee ci réseaux sociaux yi si si c'est bon et non du loolu mooy gérer inondation il faut un plan sérieux il faut un plan boo xam ne man la suma mooy lii c'est pour gérer la question une benn copain bu benn jour mu Euh, day waxtaan ak benn copain japonais quoi copain japonais di ko ne mais pourquoi yéen vous avez plusieurs programmes au Sénégal damay dégg ngeen ni lu bëri da ngeen ko bëgg a gérer en même leen ñoom Japon xam nga qu'est-ce on est fait pour développer le Japon dañ naan deux ans yi lii mooy suñu problème tant que réglé ko duñ ja duñ jàll ci leneen comme ñu ne deux ans yi nous avons un problème pour la mobilité de gens la question du transport deux ans yooyu yëpp dañ ciy consacré wu ci question transport yeneen deux ans yi ñu ne nous avons un problème mooy la question de l'hydraulique n'est-ce pas la question de ravitaillement en eau potable pour toutes les populations du Japon ñu liggéey ci loolu en deux ans yeneen deux ans ñu liggéey sur l'électrification sur toute l'étendue du territoire du Japon ñun ci comme ça doo leen liggéey man xam naa ni tey état du Sénégal am naa waat effort yi mu def ci inondation Macky Sall effort yi mu def ci inondation bu ci yi defoon volonté bi nga xam ne moom moo war dans Euh, dans un intervalle de de deux ans les gens vont régler les questions d'inondation une bonne fois pour toutes. kon Macky liggéey na Abdoulaye liggéey na ñu mu jox liggéey ñun ñooñu. non ñooñu liggéey dañoo cuut càpp dama ne la la question de l'inondation dañ ci la question d'une ci nekk a mais dama ne la pour gérer la question d'une manière définitive réglée mu féete ñu ginnaaw état amoon na yeneen yeneen façon yu mu waroon a def ak yeneen doxalin yoo xam ne bu ko état defoon tàggoo nañu inondation ndax xam nga ni ku ku régler problème inondation dans les quatre quartiers muy Léona 1 Léona 2 Mesere Minam 1 Minam 2 cinq quartiers yi Touba Thiaré du moins mais axe boobu noonu li fa nekkoon ci inondation ak li fa Macky Sall def as tuut ba tax mu mel noonu kon ce qui veut bu bu li mbëri di wax bu doole woon cere doolu ñeer inondation féete ju ginnaaw yaa ma a xam ne doolu cere xaw ma doolu ñeex donc ah. monsieur aussi aussi am euh, mm. moom mooy ministre de l'intérieur bi nga xamante ni moo am ci Sénégal de mm-hmm. dem ba benn ministre di comparer Sénégal ay Allemagne ay ay ay yéen dëkk yi donc yow noo koy noo koy noo koy jàngatee. tout à euh, man bëgguma di wax sax vraiment ci inondation euh, di ko politiquer parce que vraiment ki nekk ci ndox mi kooku euh, waroo koo dem di ko campagne ci affaire u mais fait que bon dama dégg si seen biir sax parti pouvoir ñu naan bon waruñu ko inondation bi waruñu ko politiquer. dañoo politiser nañ ko. waaw ko politiser parce que affaire catastrophique naturelle la. donc pour loolu bon man li may wax li tax ñu koy politiser mooy que ñoom avant ñu accéder au pouvoir dañ ko doon politiser jusque bu nekkee ci pouvoir bi aussi tamit buñ bañ opposition bi di ko politiser donc juste damay préciser rek ci 2019 président Macky Sall dafa taxaw wax ne réglé na problème inondation durant 4 ans boo xam ne président wàdd def na fi 12 ans te te te réglé wu ko moo tax chaque fois ma bi ma ko déggee démb xam ma barki démb mu def euh, benn con mu convoqué une réunion d'urgence pour déclencher euh, plan Orsec comme j'étais comme même même même stratégie la defoon daaw ci bi affaire mbënd bi amee même stratégie la defoon dafa dafa convoqué benn benn réunion plan euh, pour déclencher plan Orsec bi chaque fois damay wax ni Macky Sall dafa cuune xam nga tax dafa cuune chaque fois day proposer sénégalais yi loo xam ne nekkul parce que bi mu defee installation bi daf cee def euh, plan décennal bi durant la période de 2012 jusqu'à 2022 daf cee def 767 milliards sans compter 150 milliards de la Banque mondiale donc nga dégg ministre Omar Gueye <laughs> mois de juin bi passé aussi ministre des collectivités territoriales du développement de l'ensemble de l'aménagement des territoires li mu wax mu ne quatre-vingt-cinq pour cent ci affaire inondation bi réglé na ko te Sénégal bu tawee de ñaari taw rek wala ñetti taw fépp inondé vraiment mu nekk loo xam ne c'est catastrophique moo taxoon boobu PDS aussi daaw bi ñu waxee loolu mu existé benn audit technique et financier et de la de la gestion des différents projets et programmes de lutte contre les inondations donc Macky il faut que ñuy wax waxante dëgg man li ma koy reproché lenn la mu di ñaar pour ñu régler problème mu inondation bi il faut que ñuy prévenir ñuy réduire aussi ñu prévenir aussi les dégâts duñ xaar ba nga xam ne nawet bi ñëw na ñu doog a indi ay solution dañuy prévenir avant nawet bi ñëw su ko defee disposition yi ñu war a teg duñ wax problème du am mais problème bu amee ñu indi solution parce que ñëpp xam nañ ne les années à venir ndox day gën a bëri ci àdduna bi du Sénégal rek boo demee Belgique boo demee euh, li ci may pays européens yi dañuy indoonee ba fees ñu ëpp doole Sénégal donc waxuñu problème bu am mais problème bu amee li ñuy doyee autorité li nga xam ne mooy gouverner gouvernement bu problème amee da indi solution parce que solution bi moom la askan bi soxla mais doo ñëw taxaw durant nga ne quatre ans yow réglé nga problème inondation bi nga xam ne président Wade def na fi 12 ans daal di ko euh, réglé wut loolu. moo taxoon PDS def audit technique et financier doon ko laaj fonds spécial de la lutte contre des inondations muy projet bi bi sama naataangoo bi wax léegi di ko ci laaj. di ko laaj aussi tamit euh, ci financement bi nga xam ne mooy banque mondiale et di fonds nordique bi di développement di pro di programme de la restauration de Pikine irrégulier sud doon ko laaj aussi des différents programmes d'assainissement de Dakar plusieurs villes de Dakar du pays donc boo gisee may wax ne Macky Sall dafa tuune cest à que le fait que muy def programme mu indi benn programme décennal def ci 700 765 milliards jusqu'à présent il n'a pas réussi donc pourquoi mënta wax sénégalais yi li nga xam ne moom mooy dëgg et puis deuxièmement mooy li tax ma ne dafa cuune en même temps mooy que amul suivi deux choses laa koy reprocher moom président Macky mooy manque de fermité et de courage et de et parce que benn bu fekkee ne euh, am na courage su daaneel maanaam kër yi nga xam ne kër yi nga xam ne ndox dafay nekk te ay nit dëkk fa da ngay am courage gouvernement dañ il faut nga am courage def loo xam ne population même buñ ci gis seen bopp sax dana dana dana la da am satisfaction après. mais man li ma jaaxal mooy ko comment est-ce que ñoom xam nañ zones yi nga xamante ne day inondé euh, am nañ ay experts yoo xamante ni ils avaient prédit que ren ndaw taw dina bëri donc il reste ba nga xamante ni taw bi commencé na benn taw boo xamante ni taw na fi 80 millimètres à Dakar inondé ñu soog di jóg naan naan dañuy dañuy déclencher plan Orsec euh, ki nga xamante ni moom mooy ministre bi ñëw wala assainissement ne woon na les travaux ont été bouclés à gisee li inondation am. mun mhm. nañu wax ko. donc yow est fi nekk nii euh, problème bi c'est c'est Macky Sall ou bien ñi ñi mu jox liggéey ñoom ñoom ñoo joxul liggéey mais c'est Macky Sall c'est le président de la République c'est lui qui offre qui fait des ordres moom mooy génne ay décret mais mais day joxe mais est-ce que bi nekk moom da war da mais pourquoi suivi moom bu bëggee nit ñi suivi bu bëggee bu fekkee gouvernement am mënu ko def mënu ko wax lu mu def c'est pas la peine que mu nekk ci pouvoir bi un président dafay exécuter ay ay ay ay ay décret nit ñi def ko ce gouvernement mais bu fekkee ne yow bu fekkee danga ne euh, da nga ne yow yaay président mais le gouvernement ne travaille pas ça veut dire que kenn du wax gouvernement on dit le président c' est que loolu mooy def suñu différence fermeté bi mooy euh, daaw xam nga après euh, année passée bi mu bi mu rasé bi mu jëlee ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci ndox mi seen kër yi mu dédommagé leen yóbbul leen jaxaay ak ak ak plan taw ak tawféex li mu war na def mooy dafa war na rasé kër yooyu une bonne fois pour toutes pour defaraat ko mais daf ko bàyyi foofu noonu ñeneen ñoo xam ne moom ñu ko yi ñëw dëkk ci biir ci biir ci biir ci biir euh, ci biir ndox mi ñooñu tey ñooy taxaw ne dañuy inondé c'est certes que moom def na benn effort parce que génn na leen foofu utal leen fu ñu dëkk mais li mu war a def mooy daf ko war na raser complètement bu pour benn benn nit bañ fa dëkkaat donc mais daf leen a bàyyi ñeneen dëkk fa ñooñu tamit amaan ndox commencé waat di yuuxuwaat deuxièmement mooy que suivi bi bu bu comme ni ma ko waxee tout à l'heure bi may bi may commencé mooñ bu ñu commencé benn affaire c'est-à-dire bu dañuy xaar ba nawet bi ñëw ñu commencé def ay dispositions pour arrêter ou bien pour euh, def pour pour pour euh, indi génne nit ñi ci ndox mi non non du noonu dangay ngay prévenir da ngay def ay dispositions avant nga xam ne boo fekkee nawet bi ñëw na même bu ndox ñëwee sax wala bu baree du du bari ni war a baree quoi du indi ay dégâts daaw boo gisee six personnes dee nañ ci ak beaucoup de dégâts te mu mënoon nañoo ñàkk xamoon nañ ne ren dana amaan ndox pour pourquoi ñu ñu ay dispositions avant après aussi da bu fekkee nawet bi jàll na da ngay suivi les actions pour que yow bu fekkee ne yow carrément déwén dafay amaat nawet te xam nañ ne année yii di ñëw yépp ndox day am parce que c'est la réalité du changement du climat climat bi moo changé loolu du Sénégal rek bu fekkee pays ëpp doole ñoom ñoo ci génneegul waxuma la Sénégal. mais mais boo def la comparaison di jox note entre euh, la gestion de de de Abdoulaye Wade la gestion de Macky Sall sur di inondation yi kan nga yaakaar ne moom moo gën a réussir li nga xamante moom moom mooy. Euh, bon as néew wàllu gestion yi. président Wade il a def na lu bari moom sax moo taxaw génn wax ne président Wade def na fi waaye li mu fi def man dinaa ko régler ci problème si durant quatre ans taxaw élection di ko campagne 2019 bi donc. xam nga loolu bu fekkee wax nga ko ba pare nga génne benn plan décennal comme li mu ko li mu ko waxee woon plan décennal bi de gestion des inondations stratégie bi mu indi woon mooy génne xaalis pour teg ci table bi problème inondation du xaalis il faut nga am courage xaalis ci la bokk mais il faut nga am courage pour te diir Mor gouverner c'est pas facile bul ragal il faut nga am courage di def loo xam ne même ab ab mm, population bi dañ ciy gis seen bopp mais après day am suivi ñu xamoon ne lii kat nga doon liggéey mais bu fekkee ne dañu wax rek population bi ñëw nga indi xaalis xëpp wala nga indi ceeb wala nga indi suukar jox leen ko après la prochaine fois beneen pluie ñëw indiwaat ay dégâts comme ça ay nit ñi di loolu du gouverner. kon loolu du gouverner comme ni mu ko waxee ba kon laataa ñu fekkee am nga delloo ci yokk ci euh, question bi mu ko mujjee posé muy booy def comparaison ci diggante euh, Abdoulaye Wade ak Macky Sall kon wax nañu sax fa nga xamante ne fa nga jugee mu jiite caare kaw daana taa ba nga xamante ni xale dañoon dem uti jën foofu ci biir euh, tuyau yeeg yu ñu mel léegi pavé nañ ko ndox mi taaw taawtu fa donc booy def comparaison bi ndax Euh, loolu c'est en en collaboration ak ñi nga xamante ni ñooy collectivité locale moo tax loolu nekk wala liggéey boo xamante ni euh, def nañ ko ci ci ci ki nga xamante ne moom Macky Sall ci air Macky Sall la ñu réalisé loolu. bon côté boobu li mu mën a mooy le président Abdoulaye Wade dans sa gestion euh, il avait bien débuté euh, avec la création des bassin de rétention. Mm-hmm. loolu moom euh, am na. Abdoulaye Wade def na effort yu bari ak bassin de rétention yi. Mm-hmm. mais nag pour dire vrai la solution définitive vraiment ah pour alléger la souffrance des populations a été trouvée par le président Macky Sall. waaw hmm. côté côté boobu moom commune bu Djidah Thiaroye Kaw président Macky Sall bi mu ñëwee dëgg yàlla ah tey jii si c'est 100 pour cent on peut dire que les questions des inondations ont été réglées à à 80 pour cent wala plus. Hmm. seulement nag am na ay bas ay trop-plein. ay problème d'évacuation d'eau yoo xam jusqu'à présent ça reste te loolu moom bu ñu waxantee dëgg c'est la c'est la mairie qui aller en amont voilà c'est la mairie qui devrait aller en amont c'est la mairie qui devrait ah prendre bien avant les inondations xam nga ay question drainage faire en sorte que euh, ndox mi am yoon bu muy jaar dem dugg ci benn bas ñu jëlee ko ci bas bi yóbbu ko ci bassin bi jëlee ko ci bassin bi pompe ko jëmale ko géej wala def ko ci ay rigor yooyu moom wax dëgg yàlla c'est des questions yoo xam ni euh, bu mairie bi amoon ak ak xarañte tuuti dana ko doon régler une bonne fois pour foofu lay jaaree sax dugg ci li nga xamante ni mooy wàllu gestion des des localités yow fa nga xamante fa nga dëkk muy Djiddah Thiaroye Kaw euh, ñu gis la gum na ñoom xaw nañoo tere tuuti ci inondation yi mais yeneen localités yi nga xamante ni Sénégal lañ bokk. di dund wàllu inondation donc est-ce que mun nañu wax ne mauvaise gestion moo am ci yenn mairie lu ci mel ne mairie bu Yeumbeul Sud lu ci mel ne mairie bu Thiaroye Gare bi nga xamante ni marché bi moom fu mu nekk nii kenn waxatu ko ndax ndox mi nangu na ko waa camp bi ñoom ceinture nañ seen seen seen seen localité yi donc yow ban ban jàngat ngay am ci gestion localité bu ñu mënee wax euh, d'une façon globale wala wala yow euh, nga def ko localement fi nga nekkee. xam nga man en tant qu'élu local je suis à ma septième année de mandat. xam naa lan mooy gestion municipale am loo xam ne mënu ma ko jiiñ mairie yi franchement parlé tu sais pourquoi parce que xam naa lan moo ko nekk je ne suis pas dans les alentours je suis au cœur de la gestion maanaam man xam naa lan moo nekk ci conseil municipal xam naa lan moo nekk ci euh, gestion des inondations sur le plan local xam naa domaine de compétence transfert yi nga xam ne mairie yi am nañ ko ak lan lañ ciy def ak lan lañ ciy dul def mm. man dama ne si l' état sérieux Je ne dis pas que, euh, que, que, les, les, les, les de. Je dis pas que les mairies n'ont pas de. Non, les mairies n'ont pas de. Euh, comment dirais-je nu ko mën a waxee. les mairies n'ont pas de, de choses à faire pour gérer les inondations mais dama ne état moom moo waroon a jël la question bien avant les inondations mu réglé ko. tey jëlal euh, Kër Massar dañoo ñëw inondation Kër Massar débordé. Mais qu'est-ce que l'État a fait? Au lieu de chercher des solutions définitives pour gérer les inondations à Kër Massar. dafa érigé Kër Massar en département. mais mais boobu mais mais avant tout loolu ba mu koy wax. waaw da ministre bi mu jox waa euh, assainissement moom moo ne ko. les travaux sont été bouclés à 95 pour cent donc loolu doo jàpp ne ko waaw mais loolu a naxas xandaŋ jaas la mm-hmm. loolu dëgg. les travaux ont été bouclés à 85 pour cent si c'était la réalité les gens n'allaient pas patauger comme des poissons et des grenouilles à l'heure où loolu ay naxas a xandang gaz la du waxi dëgg yaa ngi dégg man dama ne nga ñëw ériger la commune de Kër Massar qui se trouve être la plus grande commune après avant euh, du moins euh, avant euh, après avant Djidah Thiaroye Kao je vais dire nest pas la plus grande commune tey du Sénégal c'est Kër Massar Kër Massar mais dafa nekk zone boo xam ni état ba mu waree song travaux Kër Massar yi ñoo yàgg ndax Kër Massar bul fàtte ni c'est c'est c'est c'est la commune qui a absorbé le trop-plein d'habitants de la région de Dakar xam nga région de Dakar bi ko bi ko tubaab yi di créer di ko installer euh, di ko def euh, la capitale du Sénégal boobu c'était pas prévu pour plus de 2 millions d'habitants boobu c'était pas prévu pour plus de 2 millions d'habitants tey jii. région de Dakar li mu am ci habitants mat na cinq millions d' habitants wala mu ëpp ko am déet léegi nag ñi nga xam ne dañu mënatuñoo am kër département de Pikine ñu am kër plateau mënuñu am kër parcelle mais ce sont ces gens là qui ont acheté des terrains à Kër Massar mais pourtant c' est le même problème qui se répète en 1972 problème boobu la ñu amoon parce que quand les gens ont commencé a occuper le département de Pikine parce pour la plupart nga xam dañoo waliyaan woon jóge dans les région ñëw mooy les premières vagues d' exode rural en 1970. mooy première vague exode rural. bu ñu ñëwee dans le département euh, de Dakar mënuñu fa am kër maintenant pour avoir une question de possession de terre ñun ñëpp dañoo déplacé wu dem dans le département de Pikine c' est ce qui a fait la création de Pikine pourtant boobu bi ñuy créé Pikine mooy ñoomin Thiaroye ñoomin Diamaguène ñoomin Yëmbal et cetera. pourtant experts yi ñëw nañ ba ci Senghor wax ko ni ko fii tôt ou tard dafay taar fii tôt ou tard dafay déborder experts yi ñëw nañ ba ci le président Senghor ne ko fii ni ñuy dëkk nii dans le département de Pikine tôt ou tard dafay déborder tôt ou tard dafay dafay dafay dafay nekk des zones rek Senghor jug pour déguerpir les populations enfin mu aménager zone yooyu noonu mu nekk ay yeneen zone comme technopole bi tey ni mu ko aménager noonu la bëggoon aménager beaucoup de zones dans le département de Pikine mais xam nga dañoo ci génnee Senghor les chefs religieux maanaam ñi ngeen di woowee euh, kilifa diine yi ñoom ñoo ci génnee Senghor ñoo ko ne waaw fii suñuy taalibe ñoo fi dëkk suñuy nit fi dëkk affaire yooyu intervention yaa ngi dégg ci la gars yi ci la Senghor génne ci programme boobu mu amoon pour déguerpir les populations dans beaucoup de zones du département de Pikine mais gis nga bu fekkoon Senghor defoon na ko depuis 1970 72 73 75 kon tey jii kenn du ko parce que nit ñi dañoo dëkk foo xam ne waruñu fa dëkk. nga ñëwaat ci Kër ma Massar mais Kër Massar nit ñi dañoo dem ba tey jii yow moo tax boo nekkee sa famille ngeen nekk fa juróomi góor mu leer ne yéen juróomi góor yi ñëpp xajoo leen ci kër gi ak seen i soxna tey ñëpp am ngeen soxna yow yàlla suñu borom may la nga am tuuti moyen pour jënd terrain mais àllu Kër Massar bi ngay jël mais depuis l'an 2000 nit ñi nii jël depuis l'an 2000 nit ñi di jënd kër yoonu Kër Masaar bi lañ jël Kër Masaar Tivaouane Peulh ñàkk ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite di jënd ay kër nit ñi ba bu ñuy jënd dañuy jënd uniquement pour am fu ñu a dëkk mais pour la plupart du temps quand les gens sont dans le besoin nit ñi duñ am temps pour xool est-ce que fii dans 10 ans dans 15 ans dans 20 ans nan lay mel ñoom dañuy bëgg régler la question urgente muy lan où habiter avec ma famille où avoir un fan laa jëlee kër gu ma moom sama bopp fu ñu ko gis dañ koy jël kon nga war a xam ni depuis les années 2000 l' état du Sénégal devrait penser à assainir euh, la commune de Kër Massar. maintenant bi ñu ñëwee ci inondation 2020 le président Macky Sall mu génnee décret ériger Kër Massar en département. ok c' est bon les populations de Kër Massar vu la densité vu la la la la, la population ça mérite maintenant d'être érigé en département ok mais maintenant la question. c'est-à-dire la situation qui a fait que Kër Massar est érigé en département lan la réglé ci inondation Kër Massar maa ngi gis barki démb le ministre de l' intérieur Antoine Diome dem fa di xuus mais fi Antoine Diome doon xuus ren Macky Sall xuus na fa daaw fu Antoine Diome doon visité ren Macky Sall visité gis ren Macky Sall gis na ko daaw ji nga yow mi li ñu nga dem xuus <laughs> déwén jéeg kii la ñu yónni dem xuus après kii la ñu yónni dem xuus ñoom daal noonu ñu ko doon jàppee maanaam at bu jot dañuy yónni kenn mu xuus ñëw kërën kërën ànd ak caméra yi ñu ne waaw j'ai vu vos problèmes on va régler ça on va trouver des solutions. donc ñu ne xam nañ ne góob bi li ma faj mais bëgguñu ko. mais ils n'ont pas cherché à chercher là où ça fait mal. yaa ngi comprendre gis nga tubaab yi dañoo wax benn affaire bu am solo tubaab yi il faut couper la malle en sa racine. am déet ndax bañ ngaa ngay bañee ca mbañaxaan ba. ni hmm. ko wolof di waxee. kon mënu ma comprendre ñu ñëw en 2021. ñu bëgg a waat la question de Kër Massar à travers des tournées. tournée réglé wul inondation Kër Massar il faut prendre des mesures idoines jël ay milliards de francs CFA investir ko dans l' assainissement. ñun gis nañu ay population yoo xam ne ci ay ndox lañ dëkk mais demal Italie dem Venise demal Japon demal Chine des gens ont aménagé sur l'eau donc la question wala boog la slogan vivre avec l'eau mais ça peut et bien exister mais avec un état sérieux Le slogan vivre avec l'eau, ça peut bel et bien exister, mais je répète, avec un État sérieux, un État ambitieux, un État qui respecte sa population. Et, et s'il n'y a euh, ci nga xam moom mooy mairie parce que mairie yu bëri ñenn ñi bu ñu waxee ñenn ñi bokk ci opposition dañ leen di écarter complètement. waaw xam nga la bokk. yëngu si si la bokk dans l'opposition du maire. je suis élu local mais je veux remplacer maire de la commune. Mm-hmm. maanaam maire yu jënd caare kaw man ak moom. ci wàccal ma toog lañ nekk ànduma ak moom jàppale moo ko ci lu muy def au contraire ah lépp loo xam deseret naa ko ci ay faay dama koy exposé. mais mais naataango boo fi nekk parce que PDS rek. waaw xaar rek xalaat xaar rek. xaar rek waa ji bu ñu xëpp suuf quoi. xaar rek dama ne dama ne man personnellement. dans l'opposition du maire. le maire de la commune de Djiddah Thiaroye Kao lenn laay xaar ci moom muy wàcc. jox ma siis ma toog. daa laaj ci ko yow la di mais daa mel dafa dëpp ma ñëw mais tey di politique ça n'a rien à ak sauver les populations qui sont dans le besoin tey mairie Djeddah Thiaroye Kaw bu jotoon les fonds qu'il faut pour gérer la question des inondations nga yaakaar damay dem ci maire bi naa damay opposé moom pour mu bañ a régler la question des inondations au contraire je vais me ranger derrière lui barki de moo Ndiaye Aliou Sall bi nga xam moom mooy rakk président Macky Sall bi mu ne dafay nangu le marché bees qui se trouve dans la commune de Djily Thiaroye-Kao bien que je suis opposant du maire je me suis rangé le maire pour combattre Aliou Sall je me suis rangé derrière le maire avec le mouvement waa gox bi pour combattre Aliou Sall pour récupérer suñu marché bees pour nanguwaat marché bees ci loxo euh, commune bu Wakhinane Nimzatt bi ko président Macky Sall bëgg a jox avec la pression de Aliou kon man amu problème boobu na leer amu boobu quand il s'agit maintenant vraiment de faire de la politique on fait de la politique ok kooku mbirum élection la mbirum xëccoo la. faire de la politique mbirum fexe faire de la politique n'a rien à voir ak associer les politiques pour sauver les populations. non faire de la politique politicienne wala faire de la politique euh, de développement. waaw waaw mooy li la wax dama ne la faire de la politique pour son propre intérêt n'a rien à ak associer les politiques pour sauver les populations man am na as tuut ma xam sama bopp bi maire commune bu Djidah Thiaroye am na as tuut lu ci boppam bi. keneen ak keneen ak keneen noonu. mais dama ne lu tax boole bopp yi. non non non bopp yi mënut a ànd parce que xam nga moo tax idéologie yi ñoo àndul xam parce que bokkuñ fi ñu taxawee xam nga la moo tax parce que yi bokkuñu maa ngi moom duñ benn maa ngi moom man xale laa damay dem kenn ma téye moom dafa a wàcc <laughs> war a wàcc gis ngeen ah. maintenant état du Sénégal <laughs> bu fekkoon tey tey li war ci ay mais billaahi lasi laa ilaaha illaa huwa me ranger derrière la derrière le maire pour combattre les inondations mais dama ne inondation même si les communes d' arrondissement euh, du moins euh, les les les les mairies des localités même bu fekkante ni am na lu ñu ci war a def en grande partie l' état du Sénégal n'a pas accompagné les maire du Sénégal. te li ma gën a naqari nag mooy état dafay seetaan ay maire ba maires yi suux ñoom ñi nga xam ni ñoom ñoo farek état di ŋàññi maires yooyu ci seen gestion inondation mu ngi mel tey waa Benno Bokk Yaakaar de la commune de Djidah Thiaroye Kaw. waa APR bu commune bu Djiddah Thiaroye Kaw ñooñu bu ñuy wax inondation dañ ko war a ñaw dañ ko war a ñaw ba mu dëgër noppi. tu sais pourquoi parce que ñoom tey jii bu ñu a wax ci inondation la première person à attaquer pour une mauvaise gestion des inondations des inondations c'est le président Macky Sall xam nga man bokkuma benn bokk yaakaar gëmuma leen ànduma ak président Macky Sall gëmuma ko bokkuma PDS gëmuma leen ànduma ak maire PDS bokkuma moom ay man mouvement citoyen waa gox bi laa gëm man li ma gëm moom muy sauver les populations kii sont dans le besoin. mais gëmu parti politique. non je dirais pas gëmu parti politique parce que tey jii maa ngi dox Sénégal. yow mii boo keroon parti politique yow Baye nga xam maa ngi yow ñoo bokk ay jëm-jëm. Mm. barki ndaayaan aw baal damay ñoo bokk. <laughs> parce que yow xam naa la réel nga. mooy mm. jaaree nga pur sang. Mm. mais gisaguma instant bi Sénégal parti politique gisaguma kàngam ma attan man Moussa la tànn ko sam boppam mu def si à part. Ah, mais je me retrouve dans dans aucun parti politique au Sénégal. waaw yaa ngi fi de Sweet Beauté. Sweet Beauté. Sweet Beauté. borom borom Sonko. Ousmane Sonko waaw. non Ousmane Sonko jërëjëf la jàmbaar la. waaw <laughs> ah, mais nag bon voilà. ñu ngi ciy yoon gis-gis bokkul la <laughs> non dama ne gis-gis yi bokkuñ sax mais seulement man Ousmane Sonko dañoo bokkul ay yoon quoi. Mm. Ousmane Sonko moom dama koy seedeel ni jàmbaar la. ok c' est quelqu'un qui s'est fait avec un voilà avec toutes les difficultés qu'il faut xam nga pour pour se frayer un chemin donc gàtt ngalaama à lui mais man ak moom bokkuñu vision man ak Ousmane Sonko bokkuñu ñu jëm. bokk moom na leer. voilà donc euh, maintenant li ma bëggoon daanelee mortal mooy. Ah, waaye jël temps pour la question des inondations. gars yi waroon ñoo xalaat une manière boo xam ne dañ koy jël en en en en comment comment dañ koy jël euh, en prévision mais les Sénégalais tamit en quelque sorte donc il que ce qu'ils ont dama lay laaj 3 mois avant les inondations 4 mois avant les inondations ban programme nga gis. nit ñi teg ko pour prévoir les inondations gisoo ko les Sénégalais cinq mois avec les avant les inondations ils ont parlé de Adji Sarr et de Ousmane Sonko di xool kan moo ëmbal kan ñun loolu suñu yoon nekku si bi ñu jógee ci loolu deux mois avant les inondations les Sénégalais ils ont parlé de Koukandé pour xool ba xam dina xar géej géej du am du ko xar kon les Sénégalais nag n'ont eu que ce qu'ils ont mérité les Sénégalais ils n'ont eu que ce qu'ils ont mérité parce que bu fekkante ne ñun Sénégal ni ñu bëgg a dundee lu ne këtt ni joon ñu ñëw bëre yuuxu taal pono baare mais bu weesoo weesoo ñu nekk ci leneen tu n'as jamais vu une association de sénégalais qui lutte contre les inondations qui vont venir tu n'as jamais vu un parti politique qui fait des actions pour préparer les inondations à l'horizon mais xam nga lan ngay gis politicien buy dem ànd ak ay caméram di visiter ñu inondé xam nga lan ngay gis politicien bu jël ay ceebam diiru ñam dem di ko yóbbul ñu inondé xam nga ngay gis politicien bu ànd ak ay parti politique dem di jël ay misère doomu aadama di ko politiquer Mais les Sénégalais, six mois avant les, les, les inondations, ils ont parlé d'Adissa. les Sénégalais, deux mois avant les inondations, ils ont parlé de Koumkane. Quand les Sénégalais n'ont eu que ce qu'ils ont mérité, je vous remercie. Donc voilà, dès que nous avons gestion inondation avec la mhm. mairie, nous avons délaissé à, côté. Mhm. Donc aussi, je pense que la commune Beaudjugé, mhm. donc euh, euh, euh, commune Bobo, ndax jaana ci yoon ndax bilan boo xam liggéey boo xam ne def nañ ko aussi ndax. bilan bu satisfaisant la wala bilan bu bilan bu chaotique la. tout à bon suñu waa ji dama koy ratifier benn. Hmm. ci wax xam naa ne opposant la na waaw ah. pe si benn opposant la. ci gox bi mu nekk. opposant opposant wu mairie la. mairie waaw moom laay bëgg a wax ni te mairie bi sa sa sa compatriote. voilà Cheikh Dieng lay waxal ah. mooy moom la ñu si suñu élection. Ah. yu yi. mais nag nit loo ko loo bañ golo golo xamal ne gudd na gudd na genn. Hmm. Cheikh Dieng c'est un super maire ñëpp xam nañ ko il a réalisé il a fait beaucoup de beaucoup de choses. ci commune bi mu bi mu nekk donc loolu xam nga pour préciser rek comme toog naa fi mu wax affaire Cheikh Dieng il faut que man tamit bi sama sama sama sama sama sama li ma li ma xalaatee donc kon xamal ni Cheikh Dieng moom sama waa ji maire bu baax la te et mu ngi liggéey te commune bi mu nekk ko jox nañ ko confiance parce que ñoo ko fa teg te te incha allah dana amaat beneen mandat hmm. voilà pour te dire. kon jërëjëf dëkkuma fa. mais dama gis ah, ay réalisation non non parce que non non sori na sama waa a juger comment comment est-ce qu'on may mu tontu ci kii non dëkkuma fa mais Sénégal bi yaatuwul pour te ah, dire non non duma damay yi rëyul fii ku liggéey maire bu ah, liggéey miir maire bu fi liggéey sa waay non déglu rek. commune bu Djidah Thiaroye mais dama la bàyyi. waaw may ko may ko ñu après nga bëgg ñëw wax maa ngi toog pourtant mënoon naa répondre te répondre ma pourtant am na ay mais dama la bëgg a wax ne Dakar maire bu fi liggéey xam nañ ko mais bu fi liggéey wut sa population da lay wàccee. kooku amul ma dem te ñëw. pour ñëwaat ci débat bi gestion des maires d'accord naa ci benn côté mu ne euh, état bu Sénégal accompagné wul maanaam mairu yi nga xam ne moom. ñoo nekk ci biir réew mi pour te dire que boo nekkee ci opposition bi état bi daf lay xeex pour di di bañ a wane say say say say réalisation donc boo nekkee ci pouvoir bi ñu may la doole man maa ngi dëkkee Diourbel parce que foofu laa juddoo te foofu laa mën a wax aussi parce que kenn ku nekk fa nga mën a wax fa nga juddoo nga foofu nga mën a wax mais ba juste pour te diir que avant dafa nekkoon PDS mais amutoon appui de financement pour liggéey réew euh, euh, commune bi donc léegi nag dem na APR gis nañ ne xaw na def tuuti ay ay ay réalisation mais dafa des donc Sénégal il faut que ñu am benn habitude boo xam ne que Sénégal ñu ñëpp ko bokk parce que pouvoir opposition ñoo bokk li ñu bëgg ñoo bokk même chemin lépp pour defar réew mi la donc jarul boo fekk boo bokkoo ci pouvoir bi ñu financé la nga liggéey sa dëkk pour mën a rester au pouvoir pour mën a maintenir au pouvoir bu fekkee ne yow bokkoo ci pouvoir bi ñu lay xeex pour que wàccee la yéegal ki nga xam ne moom lan àndal di wax rek euh, euh, loolu dama koy naqarlu parce que man juste li may nekk Sénégal sa bariwul en général man maa ngi ci diaspora bi euh, foofu laa ëpp lu may nekk donc mais damay suivi actualité yi et puis bu ma demee bu ma ñëwee Sénégal damay topp aussi li nga xam ne moom la fa euh, état bi def wala li nga xam ne moo di. mairie mais est ce aussi nekkul aussi maire yi aussi mooy ñii ñii jox maire ñoom ñoo amul compétence parce que maire yi dem dem uti ji euh, des partenaires yaa uti ji ay projets. ñoom waaw installé ko waroo tegu rek ci li nga xamante ne moom mooy. parfois dañuy manqué ay relation parce que aussi état euh, mairie du dépendre ci ci ci ci ci commune bi rek pour mën a liggéey dëkkam. Mm-hmm. il faut que mu am ay partenaire extérieurs ou bien mu am collaboration ak état bi pour mën a liggéey réew. sinon bu fekkee ne impôts yi nga xam ne moom la commune bi dajale mënta tabax sax euh, benn marché pour te diir donc mais loolu lépp ci ci comme ni nga ko waxee rek parce que parfois aussi population bi dañuy def ay fautes des fois euh, am benn waaye boo xam ne bon mën na mën na joxe xaalis am na ko donc ñu fal ko maire te amul compétent amul ay compétence yoo xam ne mën na euh, tabax dëkk bi mu nekk donc pour te dire que rek Sénégal il faut que ñu am benn habitude boo xam ne euh, pour euh, bu ñu fekkee bëgg nañu jëm ci kanam il faut que ñu nangu di doxal démocratie boo nekkee pouvoir da nga war a di doxal démocratie comme président Wade ni mu ko doon doxalee di nangu ndogal démocratie mooy nangu ndogal ci li ko yàlla may nga bàyyee ko ko bu ko jéem a xeex bu ko jéem a neutraliser pour génne sa bopp loolu moom moo empêché li nga xam ne mooy le développement du Sénégal man maa ngi dëkkee fii Kër Massar laa dëkk parce que Euh, bi ma en général euh, bu ma jógee Diourbel Kër Massar laa am kër fa laa fa laa fa laa féete mais aussi foofu aussi mën naa fa wax. parce que daaw bi fi président Macky Sall demoon lu mu leen digoon une proposition de cinquante milliards. cinquante milliards ba zone bi ma dëkk nii bu may dem damay xuus durant un an mu ne ndox mi day jeex indi na fa ay chinois malgré certes mais liggéey bi des na. des na nag parce que nit aussi tamit il faut ngay nangu ne def na mais dafa des parce que Kër Massar dafa nekk benn commune boo xam ne daf moo gën a rëy ci Séné moo gën a rëy ci dakaar parce que presque la moitié du li nga xam ne moo ñoo nekk Dakar la moitié presque ñu ngi bëgg a dëkkee ci Kër Massar ak yeneen diwaan pël ak yooyu donc il faut que ñu jéem ko yokk maanaam augmenter la gouvernance d'abord aussi fexe ba nga xam ne euh, di prévenir avant Euh, saison bi nga xam ne heure bu euh, nawet ñëwatee même bu fekkee ne ndox tey bari ndox mi du yàq comme ni muy yàqee fii wala du dugg yenn kër yi parce que boo fa duggee pour le moment boo duggee biir Kër Massar rek bala ngaa àgg rek da ngay am na zone yoo xam ne boo fa duggee doo mën a jaar. ci loolu ci ci loolu parce que da nga ne euh, yenn mbedd yi mënoo faa jaar. Mhm. dañu war def prévention yéen yéen nekk ci ay mouvement je pense mouvement Jikango. Mhm. nga xamante ni yéen ay jeunes ngeen nekk ci mouvement yoo xamante de mhm. euh, développement la ñuy def citoyen la def. donc lu tax yéen di engagement di def yenn diagnostic yi euh, xool problème yi la ngeen dem teg ko devant si ñi nga xamante ñooy mairie wala boog ngeen mettre ko devant donc ci population ñu xam ne lii mooy jafe-jafe yi. mais booba léegi politique politique la ñu di gis euh, élection bi élection la ñu gis ndax yow sa mouvement bi nga xamante ni moom nga nekk muy Jikaaw boobu mm-hmm. ak beneen mouvement yi nga jiit ndax am na leen loo xamante ni yéen yéen a ngi koy def ngir mën a euh, saafara yéen jafe-jafe askan yi fa ngeen nekk muy muy muy Sénégal fii muy diaspora bi effectivement mon frère on a fait beaucoup de choses j'espère que yow déjà xam nga ci dara ñu ngi ci boo bëggee boo duggee ci réseaux sociaux da nga gis suñuy activités yu ñu mëne déjà on a de diaspora même au niveau aussi du Sénégal. léegi léegi nga nga nga diaspora nga gën a nga ñëw ci diaspora bi yan loo xamante ne def ngeen ko. Mhm. loo xam ne wax ne lii def ngeen ko ngir mën a gën a ñoŋal. Mhm. nekk du askan wi. bon parce que mouvement bi mouvement politique la. politique la. mouvement politique c'est pas c'est pas citoyen. non c'est mouvement politique. politique waaw man maay président bi. Mhm. à partir de ñu ngi ko créé 2018. au niveau du Sénégal et aussi à la diaspora siège bi mu ngi nekk euh, euh, Cap-Vert. donc pour dire que def nañu ay activités mouvement bi mouvement il porte le nom du président Wade président Wade lañ ko tuddee. parce que euh, président Wade gis nañu ni mu jot a def ci réew mi. gis nañu aussi fi ni mu tolloo ni mu taxaw woon ndaw ñi. donc c'est pourquoi que nous avons un plan un plan achat mooy apprendre savoir et appliquer. parce que mënoo ne da ngay jiite réew te jànguloo xamuloo jëfewoo président Wade loolu la doon wax. parce que da doon wax naan euh, il faut nga wax ma boo bëggee réew jëm kanam da ngay commencé ci ndaw ñi surtout l' éducation de base juste pour jëm a développer ci kaw parce que euh, réew ay cadre ñoom ñoo ko yor il faut que nga am ay cadre mun a développer sa réew donc pour nga nekk cadre nag il faut que nga jàng il faut nga am xam-xam il nga appliquer donc c' est pourquoi que nous avons un plan d' action qu'on à ça, apprendre, savoir et appliquer. On a fait beaucoup d'activités au niveau de la diaspora, aussi au niveau du Sénégal. donc pour dire rek ñu ngi def suñu waar ci euh, politique bi ñu ngi def suñu waar aussi ci biir Sénégal parce que ñun li suñu ambition moo di fexe ba Sénégal euh, jëm kanam au nom du président Wade ñun nekkuñu ci biir parti bi nekkuñu ci biir parti démocratique sénégalais mais dañ koy accompagner ci euh, lépp lu muy def mais mouvement bi dafa autonome. donc kon bu ko Macky Sall wooyee mu ñëw. non non pas Macky bu ko wooyee mu ñëw mais bu ko mu Macky bu ñu woowee ci pour liggéey réew mi parce que ñun réew moo ñu tax a jóg. parce que booy xool li ñu li ñu jot a ci ci ay ay activités ak li ñu am na ñoo xam ne sax ñu ngi ci biir mouvement bi ñu ngi ci biir pou ñu ngi ci pouvoir bi. ça que lii suñu suñu mbébét pour te dire mooy Sénégal un Sénégal de meilleur. mooy suñu ak mooy suñu mébét mooy suñuy moom la ñuy dox chaque fois te am nañ ay programmes yu ñu war a def euh, après les après la Covid. dana def ay ay programmes yoo xam ne après danañ ko jéem a. Covid jeexagul waaw mais heure bu jeexee rek. heure bu jeexee parce que bon comme liggéey la rek te ñu ngi ci ñu ngi liggéey donc heure bu Covid bi jeexee danañ relancer suñuy activité pour mener le combat sur le terrain aussi au niveau de la diaspora. Mm. mais pour te dire pour revenir au sujet. Euh, dama la bëgg a wax euh, il faut que ñu accompagner jàppale maire yi bu fekkee ne dañu bëgg dindi affaire inondation ci ci ci ci ci Sénégal parce que moom plan décennal bi mu defoon da cee def cent comme li ma la wax léegi cent soixante sept milliards ba tey amul suivi amul résultat donc war na xoolaat ni muy bu fekkee amul solu solution aussi mu taxaw na amul solution ci ndox bi comme ni ma ko waxoon rek ndox moom fii ba dix ans jikkanam day am kenn mënu ci dara parce que catastrophique naturel la loolu yàlla moo ko def du nit moo ko def ni yàlla mooy def maanaam loo xam ne ndox kenn mënu ko téye du Sénégal rek moom moo am ndox du du du Afrique rek moo am ndox adduna bi moo am ndox il faut que nit ñi xam loolu aussi mais li ñuy doyee gouvernement mooy que bu problème bi amee bu fekkee ne am am na euh, luy xew chaque années gouvernement la ñuy joxoñ parce que population mënta devenir mënta def c'est le pouvoir qui exécute moom moo war a génne ay solution pour génne ndox mi même bu fekkee ndox day ñëw sax bu ñëwee du yàq wala du rey loolu laa amoon lu ma ciy wax. donc ah, je crois que. est ce que mën na yow am nga mébét ci fa nga dëkk parce que nee nga jubee nga dëkk. bien euh, sûr jëm ndax ndax bëgg nga nekk candidat bëgg nga accompagner benn candidat ak ban taxawaay nga nga am ci li nga xamante ne moom mooy. sur ce point là sur ce point là on est de discuter avec l' équipe. ñu ngi discuter avec le mouvement des jeunes cadres wadistes international si c'est possible que bu fekkee mën nañu am ku ñu àndal au niveau de notre localité am nañ aussi tamit ñoo xam ne ay membres lañ ñu ngi dépose ñu ngi bëgg a nekk maire yooyu yëpp ñu ngi waxtaanee mais autour du de ce point la heure bu fekkee waxtaan nañ bu juboo lépp lu ñuy def après danañ ko def euh, heure bu fekkee aussi tamit am nañ ku ñu war a jàppale danañ ko jàppale. d'accord ngeen dem fusionné ak Sonko ak ñi nga xam ne mooy Khalifa parce que nee nañ euh, ay bo ay kii yu la day mel ne nga boole bëy yeeg euh, nag yeeg kii bu leen bu leen boole. mais loolu muy sauvé muy so moo fiy jëlee Macky. Ah, Macky moo jëlee kon jë jëlee Macky moom moom mooy mooy nekk mooy nekk aussi instant bi c'est-à-dire même waxuma la présidentielle de mais comme local yi nii bu ñu fekkee am bëgg nañoo gagné local les local il faut que ñu visionné pour mën a génn jàkkaarloog Macky Sall mm. parce que booy xool que béy bi. mooy Benno Bokk Yaakaar bi depuis presque bi Macky Sall toogee ba tey coalition bi gën a rëy ci coalition bi moom la te élection yu fi jaar moom da koy gagné donc du kenn mooy dem di gagné élection Macky bu fekkee booloowu leen mu nu leen koo gagné. man je suis je suis d'accord que vision bi am PDS PASTEF ak taxawu ak PUR pour ñu mën a jàkkaarloog Macky parce que loolu rek moo mën a daaneel Macky. voilà euh, donc euh, kon ñuy ñëw si si question bi nga xamante ne moom mooy wàllu euh, élection yi jëm parce que local yi bëy yi na ay coow mois bi la mois bi la war am jàpp nañ léegi ne janvier lay am ci mois de vingt 2022 bi yow je pense que ñëpp xam nañ ne candidat nga fi nga xamante ne moom mooy jiite Thiaroye Kaw si élection yi jëm mais avant loolu ci li nga xamante ne mooy opposition jamono jii li ñu gis moom mooy fusionné euh, diggante euh, PDS euh, PUR ki nga xamante ne moom mooy Pastef ak xalifa Sall donc ñu bëri gis ne njaxas boo xamante ne mënul dem la yow ban jàngal nga am ci ci ci fusion boobu nga ñuy waaye def ci diggante quatre partis yooyu. loolu dama bëgg hmm. hmm. su ma waay sa waa ji mu ngi dëkk Diourbel la woon mhm. na boo nee Thierno ne kër ne kër Baye ne kër Yémi ne Pikine ne Sessène ne Grand Diourbel maa ngi dëkk kàcc yi ma la limal nii c'est une boo ko limee la ville est bouclée la lay jox ci superficie mhm. te je te parle pas de par habitant je par parle pas de population xam nga superficie dara lay jox ñu ne nga ni Minam 1 Minam bi fa nga dëkk Touba Thiaré lii mooy Diourbel ci rëyaay lii mooy Diourbel maintenant nag bu nekkee densité de population sunu quartier sept quartier yi ma limal nii mooy sunu suñu côté boobu suñu sept quartier yi boo jëloon seen population divisé par 4 nekkul Diourbel divisé par 4 wala divisé par 5 nekkul Diourbel. mais c' est normal. sa ñaari kii bokk na. Ah, mais ah. c' est normal mon frère. Dakar c' est la capitale du Sénégal. Ah, par rapport la région de Diourbel c' est le centre. c'est-à-dire bokkul population yi ñii le monde la moitié la moitié la moitié de la ah, population du Sénégal et waa Dakar ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi Dakar mais bokkul. Ah, bu boobaa ah, non day def def li nga xamante ne mooy compa day def comparaison li nga xamante ne mooy mooy ñaari kii yi. le ma ak yow. non man mi mais boo waxee loo xam ne jaaduwul aussi dama lay répondre. man débat du ma ak yow dañuy ñëw pour débat wala pour ay kii non. non mais pas man ñoo Moussa Ba waa xaar man je m'appelle Moussa Ba xam nga ma. ba ma xamul da ngay dégg man du pour man man ak yow ñuy débat dama ne la man je te parle dama j'étais en train de parler de la de faire la comparaison entre ba tey tudduma la tudduma sa parti. mais comparaison boobu laa lay wax. wa xaar rek ma ne la bokkul comparaison ne pas région waaw ñaan ko ma may ko def la. bu leen dëkkalee commune bu Jërë Caare Kaw ak ville de Diourbel bokkul dama ne la boo nee kër Yéli kër Seex ne Grand Diourbel ne Thierno Kanji ne ne kër Baye Laay ah dégg nga maam ne Pikine dégg nga maam euh, ne école neuf tu as bouclé la ville de Diourbel quartier yi ma wax moo suñu juróom-benn quartier nga leen dëkkale ñu tolloo ñu tolloo ci ci superficie maintenant nag ci densité ci densité ñu suñu quartier yi suñu population divisé ko par 5 moom mooy la population de Diourbel yaa may comprendre diviser ko par cinq moom mooy la population de Diourbel si Diourbel à 100 jeunes les 80 sont a Dakar Diourbel bu fekkee am na 100 jeunes 80 jeunes yi ñu ngi Dakar tooguñu foofu man je te parle de la commune de la grande commune de Djidah Thiaroye Kao alaaji loolu du caaxaan de du caaxaan xam nga tax loolu parce que commune la boo xam ne tey jii li mu laaj ci exigence par rapport à sa gestion saa waaye loolu du caaxaan. commune la boo xam ne li mu laaj tey ci ci jëfin li mu laaj tey ci investissement li mu laaj tey ci vision politique saa loolu du caaxaan pour nga lijjanti ko. y a des de waa gox bi notre mouvement ci avait même lancé une campagne de de de scinder Djiddah en deux suñu ñëw réunion siège ñu ne mooy vraiment ñun on a vu que Djiddah dañoo doon fa il faut ñoom Djiddah nord Djiddah sud. ndax Djiddah Thiaroye ko moom mooy commune boo xam ni da ngay jël taxi. yaa ngi comprendre di traverser commune bi dans la commune da ngay jël taxi de quartier en quartier di traverser commune bi comme si que da dem voyage. da y a des gens qui habitent à Djidah Thiaroye boo toogoon ñoom seen biir quartier ne leen man ak yéen ñoo bokk commune la gëm xanaa ñu nekk peut-être des gens qui sont politiquement investis mais duñ duñ la gëm tu sais pourquoi nit day nekk biir Djidah Thiaroye Kao dox dox dox dox dox dox dox fu mu ko neex nekk bi Djidah Thiaroye nga laaj ko foo foo taxaw ni mën la piqué fekk ko commune bi ba nous une commune qui demande vraiment beaucoup d'investissement. Nous sommes une commune qui demande une grande vision politique. Nous une commune qui demande une gestion très bien planifiée. Je le dis à Une gestion très bien planifiée. léegi nag ñëwal boo nga xamante ne moom mooy mouvement boobu ndax am na loo leen jot a defagum ci euh, biir commune boobu parce que commune bi euh, am na xeex yoo leen def sa biir mouvement bi ngeen yow bi muy euh, bradage littoral bi wax ngeen si li nga xamante ne moom mooy marché bu jidda caare ko li bëggoon jox li nga xamante ne moom mooy géejawaay donc mouvement bu nga xamante ne moom ngeen kii parce que wax naa ko sànq moom nee nañ suñu ci mouvement politique la yéen si mouvement bi ndax politique la wala day continuer di def li nga moom mooy citoyen laata nga ñëw ci sa candidature bu foofu noonu ci jiite Thiaré. waaw dañoo def ba parfois il m'arrive souvent ma dugg suñu compte Facebook bi mooy waa gox bi Thiaré gis fa action yoo xam ne man damay fàttali sax li ñu ñoo ko def franchement parfois il m'arrive ma gis ay action waa gox bi surtout que souvent événement yi bu anniversaire bi ak seen affaire da la koy rappelé dal naan vous aviez xam nga ñun jotoon nañ koo def biir commune bu Djidah Thiaroye Kaw amul ci luñ dugalu suñu loxo amul lu fu mouvement bi dugalul loxoom santé éducation assainissement amul lu mouvement citoyen waa gox bi dugalul loxoom biir commune bu Djidah Thiaroye Kaw ça n'existe pas amul amul domaine bu ñuy wax boo xam ni c'est pour dimbali population yi ñu am une vie saine te mouvement waa gox bi dugaluñ seen loxo amul ci luñ dugalu suñu loxo domaine boo ma wax def nañ ci daal maintenant bi ñu demee ba nga xam ne nous sommes un peu éparpillés mais li ñu mujjee def xanaa moo gën a neexati on a créé notre mini mairie tu vois. mini mairie on a créé notre mini mairie mairie ci biir mairie maanaam nous avons notre siège tu vois ce que je dis. ñun nous avons notre siège qui nous permet de regrouper tous ceux-là qui sont des acteurs au cœur de la commune de Djidah Thiaroye Kaw li ma la wax nii ay partis politiques ñu ngi fa mënuñu ko am li ma la wax nii. ay ay ay partis existent depuis vingt ans vingt cinq ans ñu ngi Sénégal mënuñu ko am ñun nous sommes un mouvement je dis bien nous avons un siège j'ai mon bureau j'ai mon secrétariat j'ai ma salle de réunion boo xam ça me permet de regrouper l'ensemble des problèmes qui se trouvent la commune amul jour bu mënul ubbi sama bureau te nit ñëwul biir commune bu Djiddah Thiaroye Kao ne ma quartier sangam laa dëkk problème sangam moom si andi situation sangam moom fi andi parce que nit ba jël ba jël mouvement bi daf ko genre genre antenne maanaam lu naqari nit ñun nga koy wax parfois Tapha Sarr Tapha Sarr Tapha Sarr parfois day ñëw ne ma boy nit ñi yaakaar ni mouvement bi ñun nous sommes nous pouvons tout régler nit ñëw wax benn affaire ba pare ma bàyyi la ba nga pare man la man dama maire je ne suis pas le mun naa def nag lu ma mën mun naa jël suma xaalis dimbali leen mun naa jël suma mooy dimbali leen fekkente ni pour réunion la salle de réunion baa ngi nii je le mets à disposition bu nekk pour ordinateur la tout ce dont vous avez besoin je l'ai li ngeen bëgg yëpp mu ngi fi ok mais du ma maire kon li ma lépp lu ma wax ci commune dama ko xam. léegi heure heure xaw que 2000 moo ñu euh, nekk maire. mais 15 millions non damay nekk maire. 15 millions ak ah, 15 nekk nekk maire. damay nekk maire mais ah. caution wu 15 millions. 15 millions municipal caution départemental. Hmm. Ah. xam nga je dirais pas que ma taxaw fii di wax suma bien. di wax man la laa amal la laa amul mais dama ne la incha allahu rabbi le mouvement citoyen waa gox bi ira aux élections même si la caution est pour cinquante millions de francs CFA. di ngeen dem dama ne la même si Macky Sall corse la caution jusqu'à cent millions de francs CFA. le mouvement citoyen waa gox bi ira aux élections di ngeen dem te ne dangay gañ élection eh, eh, loolu mi ngi mel ni nga laaj ma ba xam léegi dañuy lekk jël si si si vingt secondes nga wax si si euh, coalition wu Sonko Euh, PUR ak ñi nga xam ne mooy Khalifa ndax coalition bi dem la wala coalition de de de comme ni nga ko defee woon si deux mille deux mille pour mën a daal Abdoulaye Wade. man de bu dee dëgg laay wax bu dee dëgg laay wax coalition boobu consulté guñ ma waxuñu ma lu ci jëm man maa ngi sama ruq di liggéey sama liggéey jàpp sama ñaam mais bu dee dëgg rek laay wax opposition Sénégal kenn warta des bu fekkee duñu war a def dànk say. warul nekk ñeenti fii non du président Macky Sall dafa dépendre lu bari ci élection locale yi municipal ci dépendre lu bari ci élection locale yi. kon bu amee non non je dirais pas que xaw ma. maanaam amee ma nettali ay géntam. mais am de sérieux politique laa lay wax avenir politique Macky Sall. Hmm. avenir politique APR avenir politique Benno Bokk Yaakaar dafa dépendre à 80 cent ci élection moo tax moo bu fekkente ne nag opposition bi dañoo bëgg booloo nañ bàyyi xéeroo ngaay. bu amee bu xaar rek hmm. le PDS c'est un grand parti. très fort représenté euh, Khalifa Sall c'est une force au Sénégal dañ ko ko nangu euh, bon qui di PDS di Karim donc j'ai pas besoin de revenir sur Karim pur pur c'est une force euh, on a vu le marabout euh, Serigne Moustapha Sy maa ngi koy nuyu de passage di nuyu waa daayira Moustachidi yi nekk commune bu Djidah Thiaroye ko yëpp de passage maa ngi koy gis mu ngi def conférence de presse boo ko déggee moo nga xam ne il est déterminé alors nga jël Aïda Mbodj ànd c' est une force au Sénégal ay Mbodj c' est une force au Sénégal kenn mënu ko koo bañal Ousmane Sonko nga bañ ko nga nangu ko c' force au Sénégal n' est ce pas ak kan la ñu wax maa ngi dégg tamit on parle de Thierno Bocoum euh, ak seen polémique yooyu ñu nekk ok man je me dis nañ jël yooyu ñu teg ko suuf bu fekkente ni opposition Sénégal bëgg na jàkkaarloo ak bennoo boo ko yaakaar nañu def benn say ñëpp booloo doon benn parce que une liste unique de l'opposition bu ko gars yi defee ci la ñuy gën a mën a jàkkaarloog président Macky Sall mais même si les listes sont éparpillées au moins dans les communes dans les communes dans les communes que parti yi may wax nii ak mouvement politique yi ma wax nii. ñu mun a booloo def benn say loolu mooy dëgg mooy yoon. nga tàggatu wala beneen parce que euh, ñuy signalé ma heure bi jeex na. waaw jërëjëf euh, Mortala euh, maa ngi lay remercier bu baax a baax sa invitation di profité di féliciter encore Sus Mbagnick Diop mm. ndax jàmbaar la te gis naa liggéey bi muy liggéey mm. boo gisee installation yëre yi mu def. avec son projet nga xam ni vraiment Rewmi TV initiative la te man xam naa ne utu ci dërëm ndax mënu cee am dërëm lenn la muy il veut permettre à la population ñu am ay antennes yu ñu waxee kon ñu ngi gërëm bu baax a baax Ousmane Diop di ko di ko remercier mm. ah, di ko féliciter di ko encourager. Mm. xam naa du ñàkk nañu dalal Rewmi FM xam naa incha allah incha FM sama kër la ñoom Thialé ñoom Lala yëpp samay gars yi. su ma co-débatteur maa ngi koy encourager. ah xam naa moom ak ñoom damaa ñoo bokk mooy waa diaspora yi ñoom dañoo ko ne ñoom yaa ngi donc yéen yéen waa diaspora beeg euh, PDS ak ci nekk maa ngi lay félicité maa ngi lay encouragé ci lépp loo munti nekk yàlla suñu borom sottal ko def ko muy barke ci barke si na Muhammad may tëjee nag mooy maa ngi sant encore une fois waa mouvement citoyen waa gox bi Thiaroye maa ngi gërëm waa mouvement waa gox bi Thiaroye 2021 ça fait huit ans ma yor la coordination de la commune euh, du moins euh, la coordination du mouvement citoyen waa gox bi pendant huit ans musuma ci gis lu ma naqari musuma ci dégg lu ma naqari te musuñu ma indi benn jafe-jafe ci suma gestion yaa may comprendre kon maa ngi profité nu nuyu waa Thiaroye yépp cat ba cat les 66 quartiers de la grande commune di nuyu maintenant les les communes qui restent dans le département de Pikine ñoom ñëpp maa ngi leen di wax encore une fois ñu ngi jëm ci le 23 janvier 2022 le mouvement citoyen waa gox bi ira aux élections et incha allahu rabbi nous allons remporter les élections de la commune de Djidah Thiaroye Kao je vous donc euh, nga gaaw a tàggatoo ci 30 secondes benn kii ndaw rek. waaw def benn briefing bu ndaw daa tàggatoo wala benn. non d' abord dama lay remercier ci invitation bi parce que yombul depuis bi ma nekkee ci diaspora bi. Ah, ñu ngi waxtaan donc ci affaire réew mi vraiment nga nekk nit koo xam ne aussi tamit ku am ambition nga di la ñaan di ñaanal équipe bi nga xam ne moom nga bokkal liggéey bi di ñaanal borom kër gi ki nga xam ne moom moo defar jumtukaay bi waaye di nuyu aussi tamit suma mouvement bi nga xam ne moom laa jiite muy mouvement des jeunes cadres Waarich international te ma jiite ko euh, di nuyu aussi waa Amérique euh, suma gars yi foofu ñoom Adama ak gars yooyu di nuyu aussi waa Italie Espagne Cap-Vert di nuyu l' ensemble beneen euh, di leen nuyu ñoom di nuyu aussi ñu nekk Sénégal surtout euh, géejewaay Jatu sama coordinatrice ak euh, di nuyu aussi tamit l' ensemble équipe bi nga xam ne moom la ñu bokkal di liggéey am nag yu euh, ñu war a def après comme ni ma ko waxee léegi. voilà danañ def benn conférence de presse après xam naa balaa yàgg ñu ngi ciy waxtaan pour wax ci actualité bi nga xam ne moom mooy ci réew mi parce que am nañ ay projet am nañu aussi ambition ci biir Sénégal. donc euh, di di di di di aussi di wax suma gars yi nga xam ne ñu ngi bëgg a euh, bëgg a poser candidat pour nekk maire ñu gën a farlu par parce que tout est possible àdduna lépp mën a nekk di nuyu ñëpp rek di nuyu aussi euh, Jurbel gi nga xam ne fa laa fa laa juddoo fa di nuyu suma yaay ak suma papa di nuyu aussi suma soxna di nuyu ñëpp rek di leen jaajëfal bu baax a baax bëggoon naa mu gën a yaatu parce que am na yenn sujets yu ñu war na aborder mais comme temps bi dañu tënk mm. j'espère que la prochaine fois on va on va. amul benn problème je reste à l'écoute man maa ngi toog di déglu rek heure bu ngeen ma invité je serai disponible euh, fu mu mën di nekk bu ma fekkee biir Sénégal. donc di nuyu ñëpp rek di la jaajëfal bu baax a baax. voilà donc euh, ñu di jaajëfal tey émission xawoon naa tàng tuuti sax nañ doon ay campagne mais euh, ça c'est euh, bien passé may ma ma nuyu sama naataango bi <laughs> fàtte naa ko nuyu moom aussi tamit xam nga xawoon na tàng tuuti. mais comme politique c'est comme ça non non c'est c'est le débat pas c'est le débat mais di la jaajëfal ci ci ambition bi nga am pour la pour sa commune si jàkkaarloog euh, Cheikh euh, Cheikh Dieng. donc ce sera pas facile mais. <laughs> waaw d' accord. voilà donc kon donc kon. <laughs> ok kon kon di jaajëfal ñi ni ñoom laa bokkaloon plateau bi euh, muy ki nga xamante ni mooy Alioune Badara Kane di nuyu ki nga xam mooy professeur Moussa Ba di ancien rapport aussi ma ma kii ko ñoom taw ñoom BMJ 44 ñoom Sima Kouka ci groupe bi nga xam ne gox bu Thiaroye ñoom Matador ñëpp ñu ngi di. di nuyu di nuyu sama technicien yi nag sama caméraman yi borom mbax na yeeg ñu ni mel ak maire bu gàtt bi nga xam ne mi ngi jaar jamono ji donc donc di leen jaajëfal daal di leen jox dig daje euh, semaine prochaine ci beneen numéro bu émission euh, biir réew mi di jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ci biir euh, place bi nga xamante ni moom mooy réew mi di ko jëlee réew mi fm réew mi point com réew mi tv jërëjëf ñuy nuyu jaajëf di leen jox seen wàccuwaay jërë ngeen jëf